kontaan ndaxte aw ma seen fay ndaxte cofeel gi ak mbëggeel gi xaw ma nan laa leen ko mën a fay yéen sénégalais yi. bala maa wax nag. yéen tàccu Cheikh Bara Ndiaye

Assane Mbacké sëriñ Assane Mbacké jërëjëf sëriñ Mara Niass jërëjëf yéen ñëpp yéen a ngi liggéeyal Sénégal Sénégal rek moo kilifa yu mel nii bu ñu àndee coalition bu mel nii sénégalais yi seen xel mën naa dal ni incha allah à partir du 24 mars 2024 Sénégal dina soppeeku. tappalekat yi abal ñu sàcckat yi abal ñu wurujkat yi abal ñu dajaatekat bi abal ñu réew mi tax nañ wàcc dëgg lii la ñu bëgg Sénégal dox ci à partir du 24 mars 2024 dañuy wax président Macky Sall nag mooy le 24 mars bu ñu saboté élection yi parce que élection ku am majorité yaa war a gagné te yéen yéen a yore majorité bi parce que lii ngeen dajale fii du fi ñëw nga andi sa oto wala nga paas ñëw fii kon jërëjëf Ousmane Sonko jërëjëf Bassirou Diomaye Faye donc li nu bëgg wax mooy Bassirou Diomaye Faye gagne les élections parce que lii ku ko gis ku ko mën jéemal fii bi amul beneen candidat bu fi mën a dajale genn wàllu nit ñi fi nekk tey amul benn candidat bu ko mën amul benn bu fi mën a dajale genn wàllu nit fi daje tey kon nag ki ëpp doole moo war a gañe kon Bassirou Diomaye Faye gañe na élection yi mooy jël na li li ci des mooy ñu jëli carte yi dem leen jëli seeni carte électeur dem denc ci seen waxande denc ko ba la 24 ngeen teel a waajal xëdd bu ngeen xëddee ba bu leen tëddaat dem leen waajal dajaloo ci bureau de vote yi voté massivement

la les Sénégalais se sont mobilisés les Sénégalais sont mobilisés parce qu'ils savent que le régime président Macky Sall dictature dans notre pays le président Macky Sall a saboté le pays pendant 12 ans les Sénégalais en ont marre se débarrasser du régime du président Macky Sall et élire un autre président. Ce président s'appelle Basidou Faye. To finish in English, ah. I would like to tell to the international community. Yes. I would like to tell to the international community that Senegalese people have already made their choice. And their choice is Basiru Jomai Jahar fight at the fifth president of the Senegalese country and we want President Macky to know that the Senegalese people want to get rid of his regime because they have destroyed our country. We want to elect a new president that can transform the country economically, socially, culturally, and Senegal will be voted as one of the best countries of the world and we want the nation to stand up and to elect Bassirou Diomaye Faye as the fifth president of the country. Thank you very much. ngi tudd Fallou Fallou Ndiaye sa waay eh, kii carte électeur bu baax la bu baax bi la ñëwal jël si ko kenn ay voix fii kaay jël si fii. jërëjëf daal incha du am benn layam layame gars yi nee nañ xëdd ji ndogu jubilé xëdd vote ndogu jubilé dañuy woo Amidou Daat mu jël kaddu il est signataire de la charte de ñu may ko bu baax baax ñu ngi leen di nuyu di nuyu ci xam. ana étudiants yi ana étudiants man dama leen di jox rek ñeenti leçon bi ci jiitu daal mooy dëgg moo wóor dëgg nekk ci dëgg rek moo wóor ndax ku gis mbooloo mi daje tey ngeen xam ne mbooloo mii daje fi tey Ousmane Sonko moo ko waral te dara moo ñàkk te ñun nii ñëpp. ñëpp daf ñu dugal ci histoire képp ku moom jàpp naa ne dugg na histoire dugal na la ci histoire ndax dëggoom ñii dugal na leen assemblée nationale ñii pousse na leen ñu nekk ay conseils municipaux ñii def na leen porte ay candidature loolu lépp wane ne lenn moo ko ñor mooy senegal moo ko ñor l'homme qu'il faut doole rek moo am doole président Macky Sall lépp li nga xam ne jéemoon na ko tey askan wi wan na ne ko du fi jàll te wane na ko gis nañ ko babatoon na fi troisième mandat mu askan wi ne ko du fi am babatoon na fi ay eh, buuñaa ci mandat lu mbindiru loolu ñu ne ko du fi am gis ngeen dem na Ousmane ko doon nekk candidat Bassirou Diomaye Faye nekk candidat kon loolu yëpp doole askan moo ko waral askan moo yor dëgg askan wi lu mu wax waaw dama ne candidature Diomaye boo ko tuddee C mais man jàpp naa ne C à puissance à la puissance 4 candidat à la puissance 4 moom moo wax candidat kon démonstration la mais nga wootee ne ba nga jënd place ne Seyni benn doole bu leen yàqanti ñoo ngi fi ba 6 heures du matin denc leen doole yi bu amul bijee meenu ta dagal sa vidéo bi nga xam ni moom la président man xaw ma la bëgg a wax xaw ma lan moo ne baax a baax baax na baax

le 20 le 20 pour cent dès le premier tour avant midi merci beaucoup je vous remercie. jërëjëf. mais Abbas. sa coppe yaram bi tàng naa. non Baara li ñu waxati gëm di ko def. merci. dañuy woo koo xamante ni vraiment borom taxawaay. guerre boobu mu ngi tudd Macky Sall yéenewuñu yërëmuñ joxuñ yonent yëpp 40 ans lañ yónni ko bàyyi Basiru gor la Basiru nit ku baax la nit ku yiw la nit ku am diine la nit nit ku am xalaat la te nit ku bëgg chambre 13 chambre 13 chambre 13 la nekk ci Cap Manuel chambre treize la nekk foofu la toog ci ngor warul nekk ay bind ay post Facebook ak ay wax terrain bi mooy def la différence sàcc yii ñu jàkkaar loolu bi fu ñu romb on va les sonoriser du ñu génn ci dëkk du ñu dem fenn dañoo tëj Sonko ci biir kaso bi yàlla def Sonko ci biir xol yi ñu téye Diomaye ci kaso bi li mu wax ci Bassirou Diomaye yëpp duñ lu mu sos la ndax ñom ñaar ñoo bokkandoo nek ci wër yiñ fa nek yépp ñun inventé wuñu ay qualité pour suñu candidat ndax ki nga xamni moko tan mo tok ci kanamu askanu Sénégal mom Ousmane Sonko ñak ki ñaan ba dé ndax limu def leader yu bari buñ ci tollon duñ ko def mama ayda Mbodj mën na sédé lolu képp kuy def politique ci Sénégal da nga naan man Sonko may Basiru Basiru moy man donc na seen xel dal démb présenté nañ li nga xam ne mooy suñu programme lu toll ni 1300 cadre suñu kuréel ci politique ak ñi ñu àndal ñëpp ci coalition bi def programme tuddee ko le projet bu nekk programme boo xamante ni képp kuy sénégalais di ci gis sa bopp ba ci ñi nga xam ni daanaka dañ leen a jël génne leen ci suñu république mooy ñi ñuy woowee doomu